beneen bi mooy tàmbaliwul fi mu war a tàmbale ñu ngi tàmbali mille 2019. fan la war a tàmbalee. na dem 2017. 2017. waaw lu tax 2017. indi rapport du Khalifa Ababacar Sall publié ko. ah d'accord na ko déclassé rapport IGE. na ko bi ñu sukkandiku ba tëj Khalifa Sall na ko déclassifié. loolu lañ soxla na ko déclassifié Sénégalais liir ko. voilà loolu laa bëgg man ñu xam ne xalifa kenn gënu ko set loxo Sénégal président Diomaye loolu laa lay ñaan na nga déclassifier rapport IGE bu 2017 bi concerné Khalifa Ababacar Sall loolu lañ bëgg ñun man loolu laay ñaan mu def ko pour Khalifa set parce que xalifa li ko ñi ko ñi ko taqal yépp fa jóge fi ñu brisé élan voilà fa la jógee remonter ba 2017 parce que ñun ñoo bëgg Khalifa set Khalifa ngeen rapport bi mais fii ak déclassifié ñu ko amul droit génne. Mm-hmm. na ko déclassifié ñu xool ku loxoom taq loolu moo dama koy ñaan te am naa yaakaar dina ko def.